la la la la. La Euh, defe naa ñëwoon nañ fii yàggul doon inauguré doon lancé ci teen maanaam doon tàmbalee liggéey bi defe naa boobu ak léegi war na mat ñaari weer suma ma juumul euh, yàggul dara mii ñëwaat nañ tey alhamdulilah am ndox donte ni teen bi gudd na ndax weer na fanweeri mètre loolu li muy am bariwul loolu dañ ciy sant borom bi bu baax a baax a baax ci loolu nga xam ne mu yombal rawat na ci weeru koor yi nga xam ne euh, nit ki su wooree xelam ci ndox lay gën a nekk ci mar ak naaj bu tàng bi ni mais ngeen am loo xam ne dootu leen jaral ngeen dem ay kilomètres pour uti mais léegi mu ngi seen taatu kër mën koo ñu loolu yàlla moom moo leen ko defal xéwal googu ñu war ko cee sant doole ci liñ koy sant waaye tam di sant association bi nga xam ne mooy Peau Pain et Sourire moom mi nga xam ne moom it moom moo leen financé teen bi kon ñooñu vraiment euh, amuñu seen fay muy Peau Pain et Sourire yal na leen yàlla fay ci taxawaay bi nga xam ne ñu ngi koy am suñu askan. yal na saa borom defal leen taxawu leen sàmm leen làq leen fu yàq yëgul nee ko ñoo koy sant bu baax ten koo xam ne am na tàmbali waaye amul yemukaay waaw bu baax a baax a baax suñ xol sedd na guy ndax ndox kuñ ko jox bëgg na la ndax ndox mooy àddina mooy lépp te def ngeen ko fi. suñ coono xanaa waañ fi ñu toll suñ xet dal na ndax wax dëgg yàlla ñett dëkk la te amuñu woon ndox amuñu woon teen suñ xet dal la fi ñu toll nii moom waaw suñ xet dal na bu baax a baax ndox mi neex na ndox mi neex na macha allah. dafa neex wa ndox robino bi ngay gis ni dafa wex ba kenn mënu ko naan wallahi wallaahi. kon seen coono sax lay dëkk yeen yo xana ne yéen ci naaj wi du fekk ci ko do fekk ci bëgg ngeen wut ngeen wutal ngeen ndox defal ngeen ñu lepp ma ngi la sant bu baax no jox teen be ñu ko sant xamna sun morom jigeen jigéen ñu ngi sant bu baax sun tion kay wañ ko bu baax baax baax ndax xam nga ñu ko fi paan man nga dem ba fee do am coono boo añee taale añ yaa ngi jukki def ndank bo taala reer non suñ coonaan wàññi ko bu baax sant nañ leen wax dëgg yàlla gërëm nañ leen ndax amoon nañ coona ndax teen bi fële la ne woon ba fii dañuy yanu ñëw wala ñu jël saret léegi teen baa ngi nii suñu wet gërëm nañ leen ci loolu wax dëgg yàlla sant nañ leen kontaan nañ ci yàlla na ci yàlla kontaan di leen masawu coono bu baax a baax a baax ngeen baal nu àq ci weeru koor bi yal na yàlla nangu seenu koor te ndaxte dañ daan jël saret di rooti ci teen bi waaw ndax da ngay woor di rooti loolu day metti léegi nak buñ ko amé fi wax deug yalla mo nu gëna djégé mo nu gëna a fal wax yalla na yalla rafétal and bi yalla na yalla def jàmm yokk xéewal yi jërëjëf ñoo ngi leen di sant bu baax ñi financer teen bi li ñu bëgg ñoko xam yalla na leen ko yalla defal yalla na leen ko yalla may ñoo ngi leen di sant di leen gërëm. Alhamdulillah, nous revoici devant le puits de KN qui, alhamdulillah, au bout de quelques mois, a, a connu un grand succès avec l'eau qui a jailli, avec les finitions des travaux qui ont été euh, été faites correctement pour un grand bonheur des trois villages qui, entourent ce puits et qui en bénéficient. Euh, ce sont des villageois, comme vous le savez sans doute, qui parcouraient 3 km, 3 km je dis bien tous les jours, pour aller chercher de l'eau. Puisque ici, ils n'en avaient pas. Ils avaient certes euh, de l'eau, mais c'est de l'eau qui est très désagréable et qui n'est pas, qui pas consommable directement. Donc avec ce geste, subhanallah, on vient de soulager toute une population d'hommes, de femmes, d'enfants euh, et, de bêtes qui aujourd'hui connaissent une certaine tranquillité par rapport à l'eau qui est à quelques mètres de leur, maison désormais. Nous demandons à Allah Azza Jal de vous soulager, euh, de vous récompenser aussi bien fil dunya ou fil akhirah aussi longtemps que ce puits sera utilisé et que chaque personne qui a investi un certain effort, un certain sou, euh, une certaine recommandation pour que ce puits-là puisse voir le jour, qu'ils connaissent de la même manière et plus la récompense d'Allah Azzawajal pour lequel vous avez agi.